maa lay siyaar Babacar. lan moo waral tey lii. waa kontaan rek ndax euh, ministre tuddee ko lamb du lu la ñu ñëw délégué ñi nga xam ne maamay di sama xarit di sama lépp moom moo yor parole ministre bi tey am naa mbégte lool daal daal ci teewaay bi mu teew fii am naa ci mbégte lool daal Babacar. ah Moustapha looy wax. waa xanaa am kontante bu baax a baax di féliciter ñëng ci drapeau bi nga xam ne moom la tuddee sunu ministre bi madame la Assome Aminata Diatta di ministre du commerce la lion waaw di ñaanal yi aussi mbër yi yàlla bàyyi leen ci ba ci heure combat bi bu jotee et que le meilleur gagne leen di xamal nag ki ñuy bëreel nag moom ah gaynde la de bëgg na Assome Aminata Diatta voilà non c'est Assome Aminata au Aminata Assome waaw on y tient voilà kooku mooy li la lion de la banlieue di jigéenu Macky Sall di sëru Macky Sall di xamal nag ñu ngi bëreel di ñaan yàlla combat bi buñ ci eggee yàlla defal leen jàmm que le meilleur gagne. baytin looy wax ki lu mu wax bëriwul quoi maa ngi moom maa ku moom góobu doole ku dàq bëre yàlla la yàlla may ndam loolu la laa koy wax. maa ngi moom góobu doole ku dàq bëre yàlla la yàlla may ndam. amiin amiin amiin amiin amiin si kàttanu yàlla. billaay su bu bëree ma daan ko su xeexee ma duma ko maa ko mën maa ko ëpp doole. Lac de Guiers xam na kan mooy dab daan Alioune Seye 2 mètres kaw xam na kan mooy dab daan dama ko may sens ku bëreeg mbay guy gi bëreeg sa maane bëreeg loo soo booy bi jommalu la bu taxawee ma door ko mu daanu. yàlla xam ñu ma wu man daanaka ñu ma daan kii naanu leen ma daan ñàng daan gaaro gaar daan mbañu Diouf Kéré daan Sa Thiomé daan Dame Suga numéro 2 daan Mbaye Balla Gaye ñu ma daan kii xaaj bi daanu leen ci lam drapeau asam la ñuy bëre dama ko xam moom ministre bi bu baax dama xam ministre bi xam bu lan lay liggéey ci Sénégal drapeau am ci kàttanu yàlla drapeau ndaanaan la ndaanaan moo koy jël di ko ñaanal jàmm xam ñëpp teg nañ seen bët xam nga na ko yal na ko suñu borom dooleel président Macky Sall jàppale ko parce que jigéen bu am jom la incha allahu rabi dama koy daan looy wax yow. waaw di delloo di leen gërëm di dellu di leen gërëm euh, di kontaan ci teew bi ñu teewal a asom Aminata Diatta fii ci de contrat bi ñu tuddee ko làmb ji asom mooy bàjjen ci joolaa muy la bàjjen nationale du Sénégal parce que moom. moo uuf njaboot gi asom moo uuf jeune u asom moo uuf jeune u banlieue bi asom bëggul ku mu metti kenn banlieue boo fa demee jamono jii moo paree yam kenn xeexatul kenn kenn defatul lu bon financé na ñëpp bàyyiwul rappeur bàyyiwul femme yi bàyyiwul xale yu góor yi kenn ñëpp a ngi liggéey inondation bi ba mu balaa président Macky di jóg fu ne asom yóbbu yi nga xam ne dañoo inondé woon yu bëri fu ne yóbbu na fa pompe am yoo xam ne un million et quelque lay lay jar ñu di ko ko gërëmee di ko sante loolu di ñaan yàlla mu bàyyi ñoog ndax Casamance sax boo fa demee jamono yi nii amul amul matériel agricole la la la mu séeréer Casamance. mu ngi saawat. joolaa yi jaamu séeréer. mu ngi noonu. joolaa jaamu séeréer. loolu moom ñemewu ma ko wax. waaye ah, d'accord la. joolaa jaamu séeréer. déet ñemewu ma loolu ndax man. d'accord al loolu. non man jaamu séeréer la moom. déet man. asom daal sunu jaam. <laughs> waaw loolu daal xam naa ko ci dama la dama la asom. la Badiane nationale yàlla na ko yàlla bàyyi ñun bàyyi ko le président Macky ndax mu koy dimbali mu koy jàppale ci Sénégal ci xale yi macha mbër maa ngi lay si. waaw ah, maa ngi lay fay Babacar. ana ki ngay ma leen jibile dem na léegi. yee. pare naa bu doon léegi léegi nii pare naa. instant bu laa gis dama pare fépp barke alxuraan incha allah rabbi combat bi. sama bakkan laaj teg comment sama avenir bépp laa ci def a bëgg mu xam loolu mu dugg ci boppam waaw maa ngi nuyu waatu waatul gépp nag di nuyu waa Colobane bi ma jógee di nuyu ñëpp dama bëre fe barke alquranu karim Elton maa lay siyaar lépp jàmm tawfeex di la wax ñàkk na waaj barke Serigne Touba waa Guédiawaye dañ maa yónni yaa xam ci ma billahi wallahi taala bu taxawee dama koy dóor mu daan barke Seydina Mohamed si sa téléphone daf maa yónni yaa xam ci ma ak mooy sant yàlla bu dégg maa ngi sant ñëpp di sant ñeex Massa Dior aw ma fayam day damay jàppale di sant waa Maris ñëpp aw ma fay billahi sëñ bi maa ngi lay ziar. waaw delloo ziar. tur bi Abdoulaye Djigo la. PDG t-shirt bi noonu. waaw te maa le PDG mais le porte parole moo ngi nii moom vraiment dana représentation bi yëpp pour entreprise bi waaw. looy sànni. maa ngi lay ziar bu baax. ànd ak borom wasaale lu muy Ablaye Djigo di jeune producteur jeune promoteur di kuy social kuy jàppale nit loolu moo koy nit ci làmb ji benn xale taxawaayatul Pikine ndax moom mi leen di jàppale di leen dimbale kon buñ ko tuddee drapeau ñu ànd ak sa Ali Sow Ndiaye muy suñu chargé de communication faa mu sànni ci baat. waaw mais merci beaucoup xanaa ñëw rek ànd ak waa Wassare Général Lourd di préparer le grand combat allah rabbi mu nekk journée boo xam ne dañ ko defal jeunesse sénégalaise mais Wassa Général Lour Ablaye Djigo PDG bi ko jiite social rek ci lay dox mi ngi tabax ay kër di ko joxe mi ngi jàppale jigéen ñi mi ngi jàppale làmb te yéen ñii tamit nag maison de la presse fas yéene nañ leen koo jàppale incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla waaw incha allah. nag soxla nañu ay kër de. waaw loolu man amaguma kër de. loolee da nga am incha allahu rabi. maa war a jox kër de. danaa la jox incha allahu rabi. amaguma kër lu leer laa la wax. sama bureau seet si moom ma jox la incha allah sa bureau fan la nekk. fii technopole la nekk. technopole waaw. ah damay jël sa numéro de. waaye yow man man may jël sa. man dama man dama dama bëgg terrain man. dama bëgg terrain. sëñ bi defal ma fii sa numéro. man dama bëgg terrain. benn baat rek laa lay wax man maa ngi nuyu kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant xam ci Wassare Général Lour. man kenn dong laay lancé message muy Macky Sall Macky Sall rek laay lancé message nekk lu mu bëgg ci wàllu développement ci wasaare général bi la nekk foofu rek laa yem merci beaucoup. pare bi mooy tegi finance bi léegi fu mu jël ñu xool ñoom ñaar ñooy tege ma jël gaaw na gaaw aywa jëlal Ali Sow Ndiaye Ali tiire Ali Sow Ndiaye mooy jël kii mooy kan. Kaaw Gourdin Kaaw Gourdin ku muy dajeel jëlal beneen Kaaw Gourdin eh yàgg Albarka Kayre Albarka Kayre Kaaw Gourdin loolu leer na beneen na ñëwaat andi aywo looy wax waaw ginnaaw ma sant yàlla julli si yeneen bi samay ñaari waajur waaw di woo sama mbokk pël Fuuta yëpp waaw di woo sama mbokk pël Fuuta yëpp musiba men fo ala goto mo mi acci ko ɓiɗo mon miɗo e cippiro ko cippiro woni ko ɓernde an miɗo torade allah fo toranolan mi heɓan victoire e hoore o tournoi momi jokki loolu weesoo may woo monsieur le seen añ ma koy naan na jàpp si combat bu baax a baax may woo Bari di woo Cheikh di woo Grand Joël di woo grand petit di woo sama waa écurie waa écurie ba bàyyuma kenn grand baba mu ngi nar a toog maa ngoy sant di ko gërëm lu metti la may teg tournoi bi day metti rek waaw wax ci kaw Gourdin waaw kaw Gourdin man ma wax ci moom parce que ñëw ragal la man li mu ngi fee day waaye moom du dërëm bu nekkee fële di bëri loolu taxul xolol ñun ñu bañ a def la ñuy def amul kaw Gourdin amul keneen ak ku ñëw ma daan la maa ngi nuyu samay mbokk nag waaw mais moom na moom mi xëy biri kilife Conakry kee pe lagine eh, nabirin xilife nabirin xilife ma ko yi xam ma lii grand lug ma fa ma woo samay mbokk tournoi bi daf ma ñor dama ko bëgg sama biir xol maa ngi woo képp koo xam ne am na xam naa albarka kayre di woo sama papa di woo ñëpp daal bàyyi kenn ku lim jum képp ku xam maa lay woo ana bi des na yankaaw kum caatu Daouda Fall waaw onze billah bisimilah ina wali yàlla di wax jërëjëf Serigne Touba ginnaaw bi sant yàlla julli si yonent bi ñu ngi sant suñuy ñaari waajur di sant fi ñu jógee muy Biscuiterie ñaari télé Grand Dakar di nuyu waa Bawol surtout sama waa dëkk waa Mbombay waa Touba di nuyu waa Saloum di nuyu waa Gambe waa Gambe maa leen nuyu bu baax a baax waaw di wax ne seen mbër a seen xarit seen doom la nekk Daouda Fall looy wax ci moom may wax ci tournoi bi laay woo waxuma ci kenn neuf points rek moo ñor waaw man nga koo am force daa bëgg a no point force dama koy am force force dama mooy li ma war waaw déggoo ma de baawa dañoo yéen a yaaxam te dara du de Baye Fall bi lañ wax instant bi daa fuñu teg suñu bët ci lamb waa moom mooy du tournoi bi moo ñu bàyyi si lamb roi des arènes la ñuy rêvé kon tournoi bi jaaru gaar rek jàll 9 points rek moo ma ñor benn combat ñoruma si 9 points yi moo ma ñor barke alxuraan di woo samay mbokk nag di wax ne seen doom a ngi ne ñoo ñoo ma di woo autorité yi ci mel ni Mor Mor Ngom di woo Pape Sène di woo sama waa koñ waa Bentali Ndeye Sodi Diop Dieng ministre de la femme et des di ko woo di woo tur di nuyu sama maman maman Khady di nuyu sama supporter yëpp fépp fu di nuyu waa diaspora bi ñoom centre ma maa leen siyaar di la maa leen woo ci waa Espagne di woo waa Bentali bi fi téeri Grand Dakar di la wax ñu ma ci tournoi bi nii dañ riigo da raago da ngay lu may wax. ci tournoi bi loo ci. tournoi bi dafa tournoi am solo la damay ñaan yàlla yàlla defal ko cat yoo xam nga baax li mu wax ñi ñii ñooy roi des arènes avenir baa ngi nii avenir lamb baa ngi nii dañ leen foog jàppale leen ñi daal ci kaw ci kanam kontaan nañ ci yow. Mor looy wax. waaw Babacar tournoi bi dañ siy ñaanal Idaly mu am si réussite à 100 pour cent waaw xam naa après di ngi leen defal mbëri yu ñu def tournoi bi plateau parce que tournoi de soc la. te loolu Equivox su lay amee. waaw Equivox na ne. Equivox su lay amee. mooy yoon parce que tournoi de soc. fa lay amee ndaanaan maa ngi def plateau maa koy def naa benn tool rek. Equivox non dañuy bi ndax instant yi ku ne xam nga koy dayal. ku ne xam nga koy dayal. dañuy kale date bi ñëw toog. waaw pare day toog. pare moom faw mu toog. day ñëw toog te tournoi bi. plateau spécial. bi lam daa am si ñoom yaakaar ay ndaanan kese ñoo ne. waaye wan ne tamit euh, plateau bi bis bu ñu toogee yu bëri dinañ ko toj te Idaly da làmb nan jàppale Idaly quoi moom ndaw la te jàmbaar la ko waaw ah, jaajëf Idaly kontaan waaw kontaan naa rek di wax ne sëñ Abdou Karim Mbacké ne gën a yokk sax ndigal seen ñooñu dañ may ñaan ak bàyyi borom léegi-léegi di sant sama ñaari waajur bu baax di nuyu sama xarit bi nga xam ne moom moom sponsoré ndax ñëpp ba ñëpp dawee moom moo fi des kon nag ñi waaw ñi nga wax ne nañu ko ay jàppale am na luñ bëgg ñu doomu bawol lan te am bawol moo ñu ko dàqal may sant Mor ak staff ñu ngi production bi yëpp di am bu baax sama grand looy tëjee. Ah, lu may tëjee looy maa ngi remercier maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp gis naa affaire bi rafet na kontaan naa ci vraiment presse bi aussi kontaan naa ci ñoom dinaa leen amal spécial bi nga xam ne pour pour presse bi dong la incha allahu rabi waaw. mais sama terrain bi mbaa yaa ngi koy sóoraale. maa ngi koy sóoraale bu baax a baax soo saaganee su may ñëw ci indiwaale ko <laughs> ah, am na solo ok merci